wala ak ñaan gu xam la waaye ëwee ko morso bu baax bu set bu laab amaa ni ñu sart ci nag dañ koy ëwee nangam wala dañ koy booleeg pettaaw sàngam bu baax nag day dugg ci buntu boggal loolu moo tax moytu la moom waaye bu kese wala ñaanu kese ñaanu ku baax moom ñaw ko ci morso bu laab loolu terewuñ ko takk mooy eh, wax ji gën a lëng wax borom xam-xam terewuñ ko bokkut nag loo xam dañ ne la derwe ci boppam lañ bëgg nga takk ko wala lii faaw ngir mu am na leen dañ koy booleeku der mais bu nag yaa nga dugg ci buntu deret béjjee nag ay pétaaw ak yu demee nag dañ koy tere ci jërëjëf sëriñ bi kii dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci nit ki mu takk doom ju jigéen yi ki nga xam ne dafa njaaloo ak moom maanaam maanaam maanaam xëy na dafa jubloo wax ne eh, dafa am doom ci koom njaalool ndax ki njaaloo ak moom dana dagan ci moom mu takk doom jooju doom ju jigéen jooju waaw xam nga ci masab maalik nit bu njaaloo ak nit doom ja ci charia du doomi góor ga kenn du ko askan ci góor ga ndeyam lañ ko war askan doomi njaaloo ci charia amul bàyyi maanaam ci moom doonante mbir yëpp ndeyam la am ak ña bokk ndeyam waaye amul amul keneen ku muy doonante waaye nag góor gi ñu wax ne moo ëmbal yaayam moom suñu ko takk donte nag doomam duñ doonante sëñ ñëwéet benn mbokk doxul sa diggante waaye nag gën a am ndoxama suñu ko takk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 Euh, ci mbërëg moomu soo ko bëggee fase waat nga door ko fase waat mu tegu fase mu tegu ci sunna loolu nag mbërëg ak nifaas ñoo ci yem ba ta bàyyi xel la jigéen du doom rek ñu daa koy fase ci saasa loolu ko def mooy ne ci nifaas bu bu setagut moo ko fase ko ci mbërëg ñoo yem fase mi tàbbi na moom waaye dañ ko war a fayle bu fekkee nekkul fase mbatt buñ ko faylee nag ba euh, am laabaat bu ko bu ko bu ko bëggee yor man na yor ko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 للنور واكف عنه كل من ظلم